waaw wala ànd ak woote mbooloo lajale ñëpp boole ñëpp eh, di ko sant bu baax a baax ci heure bi mu ko def ak fi mu ko defee ak ni mu ko defee. waaw te loolu nekk lu rafet loo xamante ni lu am solo la di eh, wax nag responsable Kaolack yëpp rek na ñëw ñu bokk bennoo jàppoo bu baax a baax a baax a baax ngir nekk ci président ngir jàppale président ngir taxawu ko ba suñu ëllëg ci moom ak suñu ëllëg ci réew mi di nga mën a rafet. Eh, di soñ ñëpp di waxit nag dëgg-dëgg nag lii ñu fi gis keroog wala mosu ko gis. estat Lamine Gueye kenn ku ne xam na ni mu toll ci yaatuwaayam ak rëy gum rëy te keroog li sama benn xaritu waay di wax rek dalinkoor dal leen tubalaay li ñu wax naan dégg nga dalinkoor gaa waaye te keroog moom war na yëfi daal war na yëfi dalinkoor waaw ndaxte li ma fi gis yëpp depuis temps ba PDS ba APR ñëw di benn bokk yaakaar musuma gis benn nit dong wootee stade bi mu feesee ni mu feesee keroog te dëgg-dëgg keroog ku wax sa xaqullahi taala di wax rek te yàlla rek tax dégg nga xam nga ne ba nga ñëwee gis nga fi mbooloo waaw dëgg-dëgg euh, te mbooloo bépp nag Kaolack gépp génn waaw Kaolack gépp génn xëy bi ñàkku ñu génn mais lépp ci département bi léegi wala boog lépp ci responsable département bi mobilisé wuñ wala sensibiliser wuñ waaye dëgg dëgg keroog moom ñëpp génn nañ génn nañ wuy si Pape Demba ñëw jàppale ko bu baax a baax te loolu yaakaar na li may wax ni dégg nga àdduna yëpp mën nañu koo seere dégg nga te damay wax ne su fekkente ko defoon tey ci ànd kook euh, mouvement présidentiel bi yëpp dañuy wax ne kon dégg nga bi ko def muy benn muy coalition bi di benn bokk wala ñu APR ñoo ko def muy responsable APR yëpp waaye kii moom Pape Demba dong moo jóg mobiliser sensibiliser ay nitam ak ay soppeem ay xaritam dégg nga ba stade euh, mel ni mu mel loolu nag kon dafa am beneen xar kanam bu muy wane ci politique euh, politique gu benn bokk yaakaar lu muy wanaat ci politique gu APR waaye lu muy wanaat nga ci politique gu euh, Kaolack

Euh, ñu ngi koy ñaanaat da da moom ju baax jooju rakam ju baax jooju Ousmane Noël Dieng di rakk ñëpp xale bu am njëriñ waaw nañ ñëpp siwaat ci terrain bi ndaxte am nañ fi njëriñ dégg nga social ci ñoom la fekk baax waaye dégg kenn ku ne xam na ne ne dégg nga Diène Farba bokk ni mu ko waxee moom moom moom moomu laa woo moo ñëwoon sama kër ànd ak euh, euh, Baye May Sagay waaye bi may dem di di voter deuxième tour yi dégg nga ak moom moom Diène Farba moo tax dégg nga ma voter deuxième koy woo mu gën a ñëwaat dégg nga ci dëkk bi dégg nga liggéey jàppale président xaritam dégg nga àndandoom bu yàgg dégg nga na ko daan jàppalee waaye di euh, soñu responsable yëpp nag ñu gën a bennoo xam ne fañ jëm bennoo rek dégg nga moo ñu waaye dégg nga nit da ngay nangu dogalu yàlla li fi Pape Demba def daal keneen comme neex mun ngaa woote nga def ko euh, di wax it rek sama mbokk yee nga xamante ni am na ñaar ñu fa gis ñu génn euh, muy Alaaji Malick Gueye waaw vraiment nit la ko baax jambar la ko ko ko yene li ko president def la man da yakarna mo taxere bam wote man ma dem ci wax na ko tay de nga wax na ne ko am njariñ ci askay loko jox rek de nga malige soko way jotok wala ngiss muy daw di laqatu nit ñi amul lu mu joxe lolou lañ ko dañ koy nangul te yalla ta waye momit na nangul pap dem li ko yalla def man lolou lolou la koy ñaan da di wax soxnaam yoy ne ci ay wete diko japp li nga xamne ay jigen ni fak tek lañ de nga nañ gor gor lu baax baax waye de nga yakarna ne initiative ben la mu am nit la mu ngeen waxtan yokante ay xel yokante ay xalat comme ni ko pap defé ak man defé ko ak yeneen responsable fi nek de nga non la ko defé ak Alaaji Malick Gueye waaye nekkul initiative initiative kenn du sax initiative wu CREM la waa CREM ñoo doon ju delloo euh, Demba Pape Demba ne la comme ma defal muy président Macky Sall laa koy delloowaat njukkal ma it te loolu yàgg am ah loolu ko dañ ko delloo man tudd nañu fi ay jàng ma ma am na ah ngi taal bi suñu saalu la dañ ma ko mën nañ ko tuddee man maa ko tuddee Mariama Sarr dégg kon dégg nga waa CREM ñoo doon dégg njukkal Pape Demba Bitèye Pape Demba Bitèye jël njukkal loolu delloo ko président Macky Sall mi nga xamante ni moom moo koy moom moo tax mu li mën ba loxoom jot ginnaawam dégg nga kon loolu yaakaar naa initiative kenn initiative CREM la di wax euh, euh, Malaw Malaw moom it dégg nga la mais man mënu maa yow nga dem élection dégg nga ñu ñu ñu ñu ne nañu woote consensus consensus amul sa digganteeg dégg nga xoolal sa sa population nga dem élection dem na élection gañe ci législative dégg nga nangu te li wane ne dégg nga Pape mooy nouveau patron de Kaolack dem na élection moom li mu am ci département bi dégg nga moo ha limal li am ci département mo upp wa deug nga kon lolu lolu dama koy waxat ha deug kon yow ba nopi deug nga ñi ñi dem élection li ñi dem élection législative deug nga remporter encore deug nga ndam de kon ki ki la nouveau patron c'est pas de buter